salaamaaleykum mbokki téléspectateur yu la suivi tey émission bu bees lañ leen indil bu tudd conseil santé conseil santé c' est une émission qui est là pour vous émission bi luy buyam ak objectif am mooy pour leeral population bi feebar yu ñuy. dund tous les jours te xamuñu ni muy manifesté wu ci ñoom muy feebar yoo xamante ne mu ngi fii ñu ngi dund ak moom di yeew moom te xamuñu manifestation yi xamuñu conséquences yu mu mën a indil ci population bi. moo tax ñu dugg si fii tey seen centre de santé modulaire Mamadou Diop bu Liberté 6 extension seet si le médecin généraliste docteur Manka Diang pour mu indil ñu ci ay leeral docteur lan mooy colopathie. donc euh, lan mooy colopathie fonctionnelle tey maanaam bu ñu ko mënoon tënk daal colopathie dafa di feebar boo xamante ne feebaru butit la Euh, butit maanaam euh, yaram bi dafa di or loo xamante ne comme genre dëkk la rek mën nañ wax parce que parti bu nekk dafa am lu muy liggéey ci dafa am parti boo xam ne nag moo yor wàllum lekk bi maanaam boo xasee ba lekk fu muy jaar ba àgg ci deret bi donc parti boobu nag nga xamante ne moom lañ naan tube digestif moom moo moo moom moo moo feebar te feebar bu mu am nag Euh, moom lañ naan colopathie fonctionnelle naan nu muy daanaka mën nañ ne ni feebar la boo xam ne du feebar bu bu bu doy waar trop ndax euh, en général ça ne se complique pas amul complication maanaam nit ki du dee parce que dafa am colopathie mais euh, par contre feebar buy sonal nit torop la mën na la sonal ba nga xamante ne euh, mën na yàq lu bëri ci sa ménage ci sa liggéeyu liggéeyu kaayaf yooyu. merci docteur ci leeral yooyu léegi docteur question bi ma lay indil mooy yan signe la colopathie di manifesté wu ci ñi nan la nit ki nit ku ko am war a mën a euh, xam ne lii colopathie la ba war a mën a dem hôpital. waaw donc colopathie fonctionnelle comme euh, feebaru tube digestif la signe bi nga xamante ne moom la ñu gën a nemmeeku moom mooy douleur bi mooy méttitu biir bi donc euh, dafa di méttitu biir boo xamante ne mën na am caractéristique bu nekk ah parce que comme ni ko tubaab bi di wooyee tub feebar la boo xam ne c'est fonctionnel maanaam tey boo ko doon gëstu ci ay rajo yooyu doo mës a am signe bu évident doo gis signe maanaam léppay normal mais euh, trouble fonctionnel la donc signe bu njëkk bi moom mooy douleur bi. métit bi la donc bu weesoo métit bi nit ki mën na toog di am ay constipation maanaam seere mën nga toog seere des fois nga am jaare des fois sax mën na alterner nga seere ba si yàgg nga am jaare mën na màndarga aussi ci ci xeet biir bu am bu bu sol ngelaw mën nga toog jékki-jékki sentir sa biir bi boo lekkee day sol ngelaw euh, wala nga des fois nga dégg muy def bruit boo lekkee ba pare nga sentir ay bruit yoo xam ne c'est un peu gênant am na tamit beneen signe boo xamante ne souvent malade yi dañ koy wax moom mooy maanaam lu ñu naan euh, yéex a yéex a reesal retard de digestion man boo lekkee dangay am impression ni lekk bi wàccut dafay tag ci biir bi loolu yëpp ci xeetu man mandarga bi nga xamante ne moom day àndax euh, euh, colopathie des fois aussi tamit am na ñoo xamante ne mën nañ ñëw sous forme de nu ñu ko xatee sax reflux maanaam ngay def euh, euh, xër ñër ñë lañ koy wax je pense maanaam boo lekkee ba pare vu que lekk bi du progresser commune foo faut day mel ni luy delluwaat di yéegaat ci kaw donc euh, ñu bëri nag mën nañ ñëw màndarga sous forme de reflux de loolu yëpp ci xeetu suñu colopathie fonctionnelle la. yaakaar naa ni leer na ci seen nopp mais docteur du tema bàyyi la de léegi dama bëgg nga wax population bi en fait ki am colopathie yan conséquences la colopathie war a mën a indi ci moom que ce soit des conséquences euh, actives wala des conséquences passives ñu xam ko war cee mën a jóg teel balaa muy trottoir. donc euh, symptômes yi en quelque sorte tout à l'heure naa la dafa di feebar boo xam ne c'est fonctionnel c'est pas organique ma ma ma maanaam euh, bu ñu nee c'est fonctionnel mooy maanaam dafa di trouble boo xamante ne dalay lay sonal rek mais en tant que tel c'est pas une maladie qui est là boo xamante ne mën nañ ne dina dem ba euh, indi indi indi lii complication yeex yi mais nag lim lay def mën na la yàqal liggéey donc parce que euh, ni ñu ko ciy waxee rek am na mën nga tey feebar la boo xamante ne état psychologique bi maanaam xalaat bu bëri gi bokk na ci facteurs yi koy déclencher. ah facteurs yu koy déclenché ba nga xam ni euh, tey mën na la def maanaam boo nekkee si sa liggéeyukaay mu tere la nga mën a liggéey comme il faut donc déjà loolu impact la conséquence la maanaam sur le plan professionnel mën na la yàqal sa liggéey ok mais aussi tamit même ci sa ménage sax boo boo nekkee ci sa néegu sëy tamit mën na la yàqal la lu bëri parce que di nga toll moment boo xamante ni tu n'auras plus le temps di toppatoo sa borom kër toppatoo parce que tout le temps da d'accord euh, voilà donc conséquences yu ñu mën a def ni peut-être ci côté boobu la sinon yeneen yi c'est des conséquences qui sont indirectes c'est pas lié directement à la maladie parce que tey boo amee colopathie ngay lekk muy yéex a rees mën na dem ba nga xamante ne da lay ragal loo lekk wala nga lekk sa biir bi di métti wala biir bi di gonfler mën na la dem ba imposer la nga bañ a lekk parce que da ngay ragal jàpp ni boo lekkee da ngay sonn loolu aussi peut-être mën na entraîner plus tard nga ngay perte de poids wala dem jusqu'à un état de dénutrition ki nga xamante ne peut-être euh, euh, toog na plus de vingt jours demul sel donc le plus souvent c'est lié à un défaut transit transit bi moom moo dul jàll donc mooy nit yooyu nga xamante ne d'abord ça se manifeste avant tout par des douleurs métit bi da lay sonal ah te sorte que boo lekkee des fois lekk bi mën na gis gi nga gisaat lekkaat bi lekk bi mu yéeg ci kaw parce que day fekk matière bu ci boppam moom moo bloqué ci kii bi loolu lañ naan une constipation de progression maanaam lekk bi ci boppam temps bi mu war a def pour romb dem ba ci sel yi euh, bi dafay ralentir alors de sorte que lekk bi a tendance à stagner au niveau des intestins donc loolu mën na tax ba nga xam ne boo lekkee da ngay defaat reflux donc euh, conséquence reflux bi comme je l'ai dit toutal à l'heure c'est des conséquences indirectes peut-être symptôme bi maladie bi entraîné moom mooy indi leneen li bon voilà donc moo reflux boobu nag mën na la indil ay problème mu estomac ngay def ay œsophagite lu ñu naan œsophagite de reflux loolu aussi feebar la boo xam ne à la longue ça peut devenir organique d' accord est nga fi may waxee donc mën bu bu buy yéeg au fur et à mesure lekk bi di yéeg acide boobu day lakk estomac bi buy lakk estomac bi ça peut entraîner plus tard ce qu'on appelle des œsophagites avec toutes les complications qui peuvent survenir parce que loolu aussi beneen problème la beneen feebar la boo xam ne euh, lu ñu naan œsophagite de Ruge boobu dafa am ay propres complications ah merci docteur loolu am na solo taxaw si li nga wax léegi li ma bëggoon a xam mooy yan prise en charge la ci waa hôpital di jël par rapport ak conséquence yooyu parce que conséquences yi diis na active bi mooy lan conséquences yoo xamante ne nit ki teel na ko desee desale ci moom passive bi mooy conséquence yoo xam ne il est venu euh, le malade est venu un peu trop tard par rapport ak signes yi mu recevoir yan traitement ngeen ci jël. donc euh, donc euh, damay jàllaat ci boobu tuuti rek avant ñu jàll ci prise en charge bi mooy colopathie il y a pas une cause en tout cas jusqu'à présent trouvé guñu benn cause colopathie mais par contre on a des facteur favorisants bu ñu nee facteur favorisant maanaam ku ko def du caagi ne nga koy am wala ku ko am du da nga koy am mais da koy favoriser dégg donc euh, lu ci mel ni euh, facteurs yi yoo xamante ni sont liés à l' état psychologique du malade maanaam nit koo xamante ne foo ko fekk xalaat bi day bëri foo ko fekk day xalaat loolu gis nañ ni dañuy faral di am lu ñu naan trouble fonctionnel intestinal euh, des fois aussi ça peut être à l' d'accord donc yenn ci xeetu aliment am na ci xeetu aliment yoo xamante ne boo nit ki bu exposé tout le temps di ko à la longue ça peut induire ce qu'on appelle des troubles fonctionnels donc ce sont les expériences et les études qui l'ont montré voilà maintenant bu ñuy jël en charge genre maladie yooyu euh, il faut que d'abord avant tout ñu dafa am ñaari volet premier volet bi mooy avant tout soulager malade bi parce que le malade qui vient en consultation c'est parce que euh, il a des donc bu ñëwee avant quoi que ce soit dañuy jéem a gérer symptômes yooyu donc prise en charge médicale bi surtout c' est des médicaments que nous donnons que peut-être que yu ñu yu tudd ay garabu méttitu biir comme antispasmodique lañ koy woowee ci ñun yooyu en général la ñuy joxe ah des fois nañ ko cumuler ay régulateur de transit yoo xam ne day permettre comme ni ma la koy waxee lii di xëcc euh, lekk bi ba mu gën wàcc rapidement mu accélérer ko. donc yooyu ça va servir plutôt à soulager les symptômes euh, du malade bu fekkee nag dafa méngoo wax constipation mën nañ la jox benn garab boo xam ne day fluidifier màcc euh, cabinet bi pour bu yombalal progression bi mais euh, pris traitement prise en charge colopathie li ci ëpp solo moom mooy mesure hygiénodiététique bi mooy maanaam melukaan bi yàlla ci wàllum lekk ci wàllum habitude alimentaire u malade bi en général ñun on insiste beaucoup plus sur ça d'accord parce que lële le le malade ne pas ne peut prendre continuellement mala euh, garab yi dañ koy jox juste à la phase douloureuse bu ñu calmer douleur yi le reste nag c'est ça sera plutôt le régime bu malade bi di adopté voilà te bon régime bi euh, lan la c'est-à-dire que s'il y a certains médi aliments que yu ñuy demander maladie mu éviter ko am yoo xamante ne dañ koy wax mu koy lekk en grande quantité donc parmi yi nga xamante ne yooyu la ñuy wax mu éviter ko en général ce sont les les aliments qui sont constipants mooy yi nga xamante ne day perturber transit bi lu ci mel ni les aliments qui sont à base de pâte ay genre ceeb bu bëri yeeg macaroni spaghetti ak yooyu yooyu dañoo gis ni bu chaque fois comme pâte la ah, dafa am benn effet constipant boo ko lekkee day retardé parce que déjà la ci feebar bi gis nga ni problème mu transit la donc boo lekkee loo xam ne day gën a bloqué transit bi là tu aggrave la maladie d'accord voilà donc moo tax dañuy euh, conseiller malade yi bu ñu tollee ci stade boobu ñu éviter aliments yooyu par contre comme facteur favorisant gis nañ ni euh, ah, plutôt yi nga xam ne day calmant plutôt euh, gis nañ ni légumes yi yenn xeetu légumes yi ak yenn xeetu fruits dañ ci am effet bénéfique maanaam malade bi bu koy lekk dina gën a accélérer transit et ça le plus souvent c'est pas seulement pour la colopathie mais ci xeetu feebaru tube digestif bi yëpp la gis nañ ni dañu am benn apport bu bénéfique ci feebar yooyu dégg donc euh, en plus de ça l'eau ndox mi ndox mi dañuy conseiller aussi tamit malade bi muy naan ndox bu bëri fu mu toll muy naan ndox bu bëree bëri bëri bëri bëri parce que ndox bi tamit day gën a accélérer transit bi d'accord donc au total daal si wàllum lekk bi donc euh, li ñuy conseiller malaad bi mooy muy naan ndox bu bëri ak euh, di di di di lekk légumes yu bëri ak fruits yu bëri d'accord boo gisee ni malaad bii am feebar bi tamit dafa nekk malaad boo xamante ne il tendu psychologiquement donc le, le traitement aussi va viser à ce niveau jéem ko euh, dalal Euh, waxtaan moom bu jaaree tamit ñu référé ko ci spécialiste yi ñu jël en charge côté psychologie boobu ba nga xamante ne aussi dina modérer trouble yi muy am. merci beaucoup docteur si leeral yi ñu indil yaakaar naa ne leer na ci ñopp ñëpp léegi docteur li ma bëggoon a xam mooy ban tranche d'âge la ñuy gën a far di gis colopathie ci xale yi ci mag ñi ci ndaw ñi wala maam maamaat yi ci ñan lañ ciy gën a far di gisee ak ñan lay gën a sonal. bon xam nga tey bu ñuy évaluer loolu loolu c'est ça dépend également ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi nga nekk mais tey maanaam ñun bu ñu doon xool fii ñun suñu wàllum fii seen lu ñu ko gën a remarqué moom mooy ci élève yi ci élèves yi surtout ñi nga xamante ne dañuy yendu seen école et li ko li koy firndeel moom mooy maanaam seen alimentation da gis ñoo xam ne dañuy dem ils passent toute la journée di consommer ay pâtes ah wala xam nga xale yi ñoo gën a bëgg a lekkum pâtes yi donc maanaam ci euh, jeune âge bi ñooñ si lañ ko ñooñu lañ gën a remarque gis ni ñoom ñooy faral di am ay genre problème yooyu donc disons bu ñu doon tranche d'âge bi c'est entre peut-être 15 à 30 ans d'accord donc ci feebar bi daal ci ñooñu lañ koy gën a gis remarqué. léegi docteur par rapport à bëgg naa gën ñu cee leeral tamit te nga ñu ay conseils ci nan la ñu war a mën a def pour moytu colopathie par rapport ak suñu alimentation par rapport ak suñu dundin ci kër yi par rapport ak euh, lieu de travail yi nan la ñu war a mën a def pour moytu colopathie fonctionnelle. donc euh, li ma mën a wax donc déjà ça sera très difficile pour ñu def euh, volet préventif bi en tant que tell parce que d'autant plus que xamuñu feebar bi euh, cause directe bi mais li ñu mën a wax mooy que il faut que nit ñi bàyyi xel bu baax ci seen lekk parce que jamono ji comme ni ñu koy waxee dañoo toll ci moment boo xamante ne nit ñi dañoo yàkkamti toog jël seen repas normalement sax amatuñu jot bi parce que donc loolu mooy la ñuy pousse tout le ñuy dem di consommer ay euh, fast food ak affaire yooyu parce que tu peux voir quelqu'un ku yoo xamante ne suba ba ngoon lépp lu muy lekk ça c'est à base de pâtes donc il faut que ñu bàyyi xel bu baax ci loolu te des fois aussi tamit l'autre problème qui sa pose maanaam ñun bu ñu lekkee fruits légumes dafay fekk mu toll ci situation boo xam ne fet la waaw daf du loo xamante ne dañoo am habitude di ko lekk loolu aussi déjà tamit c'est un problème et euh, lu ci mujj moom mooy ndox mi les gens sont tellement occupés ba nga xamante ne des fois dañu am problème aussi pour naan ndox di nga gis quelqu'un qui reste pratiquement toute la journée boo xamante ne day nekk en diète hydrique du naan ndox loolu aussi tout ça ce sont des facteurs yoo xamante ne il faut ñu bàyyi ci xel donc pour éviter il faut avoir une une alimentation saine et équilibrée d'accord Donc, euh, manger en respectant les trois principaux repas, manger de façon équilibrée. De façon mooy équilibrée, moi, madame, matin, les kétiep, añee ceeb bëgg a reeree ceeb wala nga lekk suba mburu bu bëri ceeb bi ñëw nga dell ci reer bi nga bëgg teg à base de pâtes loolu en quelque sorte tu as passé toute la journée à consommer des pâtes donc il faut que ñu am alimentation bu bu xool ni ngay agencer sa aliment yi ba nga xamante ne dans la journée au moins boo ci amee benn aliment boo xam ne ñu ngi la ñuy remercier en tout cas ñun waa centre de santé Liberté 6 et sous le nom du médecin ñu ngi la ñuy remercier bu baax euh, et j'espère que ça sera le incha allah dina am occasion waxtaan ci yeneen feebar donc euh, docteur ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité ak leeral yi ñu indil par rapport ak colopathie fonctionnelle j'espère que yéen population bi yéen ñi dima ma seetaan yéen ñi téléspectateur u Leuz TV jàngat ngeen ci lu bëri xam ngeen ci lu bëri te yaakaar naa ne di ngeen ko appliquer à la comme ni leen ko docteur waxee ñu ngi leen di jox dig daje suñu émission prochaine ak yeneen maladie yu gën a sonal population bi ak yeneen conseil ak yeneen prise en charge ak loolu merci beaucoup